nuyoob lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek baaxoo ko mooy buñ egsee ci weer wii di weeru Cheikhul Xadim muy safar xel yëpp dem ci benn bis xel yëpp dem ci fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ni Cheikhul Xadim wax na ne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 Eh, muy kàddu yoo xam ne rek kàddu yi soññee kàddu yi cant kàddu yi fàttali loolu mooy kàddu yi ñu ñaanal ko mu fekke ko ay déwéni déwéni déwéni déwén nu di ko fekk ay déwén déwén ànd moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil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 di leen seereel sunu cant bu baax a baax sant gu sant sunu borom ci boole gi boole booleeg sëriñ bi sant nag sant nag mboolem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 ko bokke woon démb. nan ko bokke woon démb. nu dajawaat ci. nu daje ci. ci nii nu ci daje ci nii nu ci dajee. di ma tudd. ñu di ma tudd. di tudd sëriñ bi. di wal sëriñ bi. googu wàll. googu maa ngi leen ciy sant di leen ci gërëm bu baax a baax. cant gu rëy a mel na ni sikkuma ci ci ñoom dara. bëgg ndax seenu bëgg sëriñ bi. mate na ko mate na ko. seen ak doyloo sëriñ bi seen ak doyloo mate na ko seen itte ci sëriñ seen itte ci sëriñ bi. mate na ko maa ngi leen di wax ne jërë kon maa ngi leen di wax jërë ngeen jëf. la ca nag. la ca nag. mooy nu gën a xam nag. mooy nu gën a xam nag. bis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 fas yéene. fas yéene. gën a waajal bis boobu bu baax. fas gën a waajal bis boobu bu baax. ak sunu yéene ju rëy ju rafet. ak sunu yéene ju ju rafet. ak sunu bu wér. ak sunu pëste bu wër ak sunu yitte ju mat ak sunu yitte ju mat. noonu lañ koy waajalee. noonu lañ koy waajalee. lépp nag. lépp nag. dig sant rek sant rek. muy santale ko muy santale ko. loolu rek mooy li ci nekk. loolu rek nag moo ci mooy li ci nekk. la ca dolliku nag. la ca ko nag. muy bisub soññee. muy bisub soññee. ci ni ñu ko war a nun jàppe ci nun niñ ko war a jàppee. dañ cee war dañ cee war a soññ suñu bopp. dañ cee war a soññ suñu bopp. soññ soññ gu sëkk. soññ gu sëkk.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 baax. nu gën a góorgóorlu bu baax. ci gën soññ soññi suñu bopp. ci gën a suñu bopp. ci ci lim nu bëggal. loolu nag. loolu nag. du lu neex a euh, génn ci làmmiñ. loolu nag du lu neex a génn ci làmmiñ.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 fas yéene di taalibe nag fas yéene nag di taalibe nag rek. ci suñ lépp ci suñ lépp. di yéeneent lu baax. di yéeneent lu baax. ndax yéene yéene moo jiitu. ndax yéene moo jiitu. nu yéene lu baax. nu yéene lu baax. rawatina ñu ko yéeneente. rawatina nag ñu di ko yéeneente ci suñu diggante. di bëgg lu baax. di bëgg lu baax. yàlla rek tax te yàlla rek tax.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 ladaa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa qilaam kon loolu wane woon na ne fii la koy defee nawaytu shukruka fii zal yawmi yaa samadi yaa samadi yallaahu sa sal qabla raai wa chiini am fu wax ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan indahuma wa inda minan yooyu yëpp day firndeel rek ne bi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 te doxee ko noonee mu ko bëgg woon wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yasmini llahu inda jawali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali yasmini llahu inda jawali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali nafa